ci buntu primature bëri woon naay nit ci biir ñëw premier ministre Ousmane Sonko diggu Kaba bi nga xamante ni moo ci pare ñu jàppoo ñoom ñaar ci biir bureau bi nag lañu nekk di waxtaana ginnaaw waxtaan ba pare ci lu toll ci benn waxtu ñu génnaat wax ci lu ñu tënku. ci gën a am solo mooy di dañu war a jubli immédiatement ci liggéey bi di ko féliciter. ndax président de la république Bassirou Diomaye Faye moo ko tàbb pour mu nekk njiitu gouvernement Sénégal. mu nekkee ñaan ak jokkalante ay lenge moom Sidiki Kaba mu ne dara mënul nekk. su nekkee démocratie amul. dafa am ay fondement yu dëgër ci fukki at ak ñeent am nañu ñetti alternance en 2024 wane na que démocratie premier ministre bi di Ousmane Sonko moom rafetlu na torop ni nga xamante ni Sidiki Kaba doon na ko liggéeyee. boo jaajëfal ci nit ñu dalalee tey moom ak ñi mu àndal yëpp def ko ci anam bu gën a rafet ak ni ñu doxalee passation bi ci document yi nga xam ne defar nañ ko jébbal ñu ko may ñu gis liggéey bi nu mu tëree.